asalaamaaleykum beaucoup téléspectateurs Touba TV boo ma gisee nii fii ma taxaw modi entrée Bargny Manam boy dugg ci Bargny fi ngay jaar suñu droite ñu ngi am société bi nga xamantene modi moo di ba taxna pollution képp mom mo ñu wër ay auto yuy dem ak dik. Tay nak dañoo ñew seet si ñi nga xamantene ne ñoo di wa ndax jamono ji gis nañu ne que Sénégal ndaw ñi mag ñi ñepp dem wuti ji li nga xamantene modi

Bargny di commune digganteem ak Dakar, 30 km mo dox sen diggante lu tollu ci 70 000 habitants ak lu tek di fa yeewoo ci ay coono ak jafé jafé, danaka sax dañoo ndax société cimenterie bi di Sokosim, nek ci sen wet di len ërtal goudi ak pollution budul jeex ci wetam ké de pêche bi jege itam ñu fay di ketcha, saxar si di len xër sa suné. dëkku Lebu ba ci seeni maamaati maam napp lañuy dundee ñu dem ba seen géej gi daanaka furaas dara amatu fi mënatuñoo dem ba jàpp jën te jën yi lañu yaakaar ngir dundal seeni njaboot seeni mbokk ak seeni xarit ak am di jàmb ba tax ndaw yépp góor ak jigéen ni itam comme dëkk bi dara amatu fi dañuy wutali Espagne am nanu quatre mbaal dem nanu ba ñëw quatre mbaal la ñu am gisuñu wenn jën wenn aw jën amu aw jën aw jën aw jën dañu sonno dañu yor ak njaboot Macky Sall ngir yàlla ba tey nekk Sénégal la tuba yaabay bi pour la saani géej gi dara amu si nga jàpp jën benn jën pour nga jàpp ko problème la nga xam ne loolu metti na état waruñoo dimbali dimbaliwuñu man am naa soxna waaw. tey yaakaar sa doom mu dem Espagne moo ma gënal sama doom toog fii yaay dëgg man maa ngi nii ñun ñii ñëpp ñu ngi nii toog fii yaay dëgg liggéeyuñu defuñu goruñu yettuñu jàppuñu si dara géej gi lañu yaakaar ñu ngi di dem géej lu ñu yàlla wërsëgal ñu doyloo ko suñuy doom yi nga xamante ne ne tey jii ñu ngi nekk Espagne ñun ñoo leen ñoo leen yor fii yor seeni jabar te yaakaaruñu salaire yaakaaruñu dara mais yàlla nag mu ngi ñuy dimbali si sutura. yàlla moo yàlla mu ngi dimbali si sutura mais gisuñu lenn loo xamante ne na état dimbalee nuñ ko. laa ilaaha la bañ a yéeg waay damay dem léegi su ma gisoon léegi nii léegi léegi léegi damay dem. ak li de si dara damay dem léegi nii dem naa dix fois. yow dem nga bu sa bu sa doom demee da ngay nga xamante ne mooy sa doole da ngay am somme boo xamante ne moom ngay jëli ji si sa compte dëgg li ngay jël ci sa compte nga jënd sa ceeb jënd sa diwliñ di ñaan yàlla suñu borom balaa loolu laajee yow nga am loo taxale nga jënd sa ceeb jënd sa diwliñ te incha allahu rabbi bu neexee yàlla suñu borom bari ñi képp koo xamante ne na génn na fi bari ñi amut ab sàcc amul mandaar yi amul wéyu liggéey la ñu xam suñu demee ba borom la tournée yi ñi nga xamante ne na la tournée gu si nekk dana eb cent et quelques personnes dam ñëw andi ku si nekk am 10 000 francs wala mil 2500 wala 5000 francs yàlla dogal amoo dara nga ñëw nga yëkkati nga jox sa waajur bon donc booy dara taxu leen a jóg ngir dem tekki. ah déggoo li ma la su dogalee damay dem damay dem du ma xaar di de xaru laa ilaaha illallaah la. boo demee ba borom Philatoury yi jël seeni i mbaal aj ka jóbbu seen kër jël seeni gaal jaay ko. ñoo xamante ne dañuy bëgg ka ngeen xam ne ne tey ji géej gi neexatul géej gi neexatul géej gi neexatul géej gi neexatul te ñun géej lañu yaakaar amuñu ah, yaakaaruñu lu dul géej géej ji nag pour mu neex nag yaa ngi dégg ah, yàlla suñu bool géej dañ ne géej du biir day jékki-jékki rek wasin mais nag tey dañ am ay ay ay ay ay ay yoo xamante ne dañ ko signé ah, si géej yaay yaa ngi dégg contrat yooyu lu ñu gën a sonal si la bokk. ay ndaw yu yëgg Espagne yoon bu metti tar lool. nga gis mbégte ak bànneex ci seen xarkanam kanam daanaka gëmee ñu ni sax ñoom yegg nañu fii di Espagne mu mel ni ñu nekkoon ci safara rekk walla guddi gu bët setagul lañuy fekk amaana xamuñu ko waaye ñu ngi ànd ak mbégte. am na ñoo xamante ne ne yegg nañu yàlla dogal na ñu yegg góor ak jigéen mag ak ndaw yàlla dogal na ñoom yegg nañu si ba temps bi di neex waaw yàlla dogal na ñoom yegg nañu. ñun xam nañ temps bu baax ak temps bu bon yor nañ suñuy programme yu baax mais dafa fekk ne ñi waroon a dem yaa ngi dégg sa jamonoy dam ñuy mool yoo xamante ne am nañu expérience bi dëkk si dëkk bi yaa ngi dégg am lu ñuy sentir si dëkk bi métti métti na ñoom ñu seen wàllu bopp ñoo mànkoo yaa ngi dégg déemal tëgg seen i euh, dem seen yoon daan ji seen doole mais ñooñu nag ñooy ñi nga xamante ne ne tey yi ñoom ñoo fi nekkatul parce que ñooñu géej lañu yaakaar xam géej xam nit géej ji doxe xam programme bi ngelaw leeg programme yëpp mais instant bi dëkk bi moo desatul ay mool yoo xamante ne na mën nañu yóbbu ay gaal léegi nag dafa am loo xamante ne na dafa am ñoo xamante ne na xamuñu si géej dara dañuy tëgg seen gaal yaa ngi dégg léegi mool yi nga xamante ne na tey jii ñoo leen waroon a yóbbu yaa ngi dégg dooleel leen amatuñ fi genn wàll gi fi mu toll nii instant bi bu fi gaal doon génne boo xoolee ba si biir li siy génn si ay personnel ñoo xamante ne dëkk nañ bëri ñu géej doo si lim 15 est-ce que di nga am sax 10 bon donc léegi day ñoon ñoo xamante ne na ay gan lañu ñoo xamante ne dëkkuñu si dëkk bi ñoo xamante ne na xamuñu leen ñu dégg ne bari ñi yaay dégg tey jii fa gaal yi di di demee ñu daw ñëw mais nag fekk nañ gaal yi war a yegg yegg nañu ñi wa doon yóbbuy gaal yi dem nañu ñooñu amatuñ fi képp koo xamante ne tey jii benn instant yi euh, ñëw nga fi pour ne da ngay dem géej yaa da ngay dugg si gaal gi amatuñ ku ñu yóbbu temps bi baaxatul. ñi nag ay ndaw lañu yu wutali woon gaal yi ngir jot Espagne amoon yaakaar. dimbali seen bopp dimbali seen njaboot tey ji kenn xamatul ci lan lañu nekk jël nañu gaal yi seeni mbokk ak seeni xarit ak am di jàmm di leen seet ba tey fii ñuy wax ak yéen gisatuñu leen Fara Diouf di ndaw bu am ñaar fukki at dëkk Géeraw déparé woon ca Joal ba tey kenn xamul fu mu ne keneen ki di Badou Diouf moom it dëkk Guéréo ay atam toll ci fanweeri at ak juróom benn Joal la bàyyeeko woon ba tey kenn gisu ko beneen ndaw di Serigne Thiam dëkk Tambacounda kenn déggatu ko depuis octobre Ibrahima Ba dëkk Tambacounda moom it 28 octobre ba fii ñuy wax ak yéen kenn déggatu ko li ci metti mooy soxnaam mucc na ci ginnaawam am tun tànk waaye ba tey kenn xamul fu mu nekk xibaar yi nag ñu ngi ko jëlee ci page yu Ayoba Faye di ay xibaar yu wér te wóor. affaire yu mbokk mi lu xew la nii rek kenn mënu ko xayma. def nañu fi presque huit jours ah suñu huitième jour si lañu teer ni waa diw si lañu teer daj nañu ay coono yu métti ah bi ñuy teer daj ay coono yu métti di dem fii dëkk bi. après ñun xamuñu la moo ñu tourné waat nag soo amul fi nga jëm nga delluwaat ñu lee ñun ñu teer Mauritanie après ñu ba war a lekk ba suur la lekk ba ndéj geewe nga comme ni ñuy demee yàlla day dogal temps bi baax ñoo génne mais yàlla dogal na fi mu toll nii instant bi temps bi muy loolu quoi waaw mais booy am nañu expérience boo xamante ne na suñ demee ba mënatuñu dañuy dellu sa ñëw toog si seen kër waaw. jamono ji moom temps bi moom muy loolu baaxul. laa see daal lépp suñu borom la yàlla moo dogal ne war ñoo àgg ñi war a àgg yàlla dimbale nañu ñu àgg. dëgg yàlla dogal ñu teer Mauritanie gaal googu moo fi gaal googu bari ñi gaal googu moo fi am problème. moo gaal googu daal l'essentiel ko teer na Mauritanie lii oh, oh, dëkk si dëkk bi ñii dëkk si dëkk bi laa wax de ah doo doo doo doo doo doo lim dix depuis ñuy ñuy clandestin ba fi may wax ak yow nii mënoo fi lim dix personnes yoo xamante ne seen bakkan ñàkk nañ ko fi fii si Bargny amul. yàlla moo ma tiim ku dee yow ak sa bàmmeel. ñun ñoo dëkk si dëkk bi bu fekkente ne dafa am loo xamante ne dañ journaliste yi dañ koy wax di ko def loo xamante ne na addina bi yëpp ñoo koy dégg yaay dégg bon da ngay ñëw fa nga xamante ne na yaay dégg fa la nit ñi dëkk boo laa wax nga ñëw information ba pare nga soog a informer. non man non man man maa si yow dama gis ay ah, naa nekk am na si yeneen i gaal yi ah. yaa ko wax coono mais coono yooyu baax borom la. coono yi. non suñu lekk jeexul. suñu lekk jeexul dara jeexul. waaye yàlla moo dogal ne àgguñu nañu nangu loo ko. gis nga Bargny ngërëm lañu war a am si mbëkk mi parce que lii tax ñu war a mën a am ngërëm si mbëkk mi mooy keneen ka dem nañ ba si laa ne signalé na ne Bargny mooy aéroport bi ñu encaissé ko di yóbbu ay doomu aadama pour ñu ñëw jëriñ seen waajur. li ma la wax noonu mooy li nga xamante ne mooy lu fi nekk muy loo xamante ne presque boo ko doon lim boo amul quinze quinze gaal yoo xamante ne bu si nekk mën na yëpp euh, euh, deux et quelques personnes yaa ngi dégg gaal yëpp yàlla dogal na yegg nañu si jàmm ak salaam. am nañu ñu des géej am nañu teer du question soo mënee féere ñu ciy génne déret yàlla bu tuddee fi nga war a am dañ si am yàlla moo dogal na ñun dañu war a sëbe sëbe nañu. am nay góor am na nay jigéen. non kenn sànni ña si géej gi. ñi ña gis après naari ñaa ñu jël yow bu ña suul ña denc ña. ba tey ci seen image yi yéen a ngi gis ne ndaw ñi du yoonu gaal gi donc lañuy jël dañuy jël yoonu suuf jaar ci dëkku naar yi lu ci mel ni Libi ngir wutali Espagne ay góor ak i jigéen ñiy feebar wopp marnaan nekk ci ay coono yu méttee métti ñu leen di may ndox saa saa sax ñenn ñi dañuy faatu ñu bàyyi leen ci àll bi waaye ak lu mën a am ndax li jar na dugg jëm Espagne. coono mooy lan. ngay dem di daje ay ginnaax yu xamante ne moo sut bâtiment bi. ay ginnaax waaw bàggay moo sut ginnaax bi. ah léegi soo mënatulee dem nooy de. waaw léegi doo dellu yàlla def ñun ñu dellu après naari téye ñu. loolu rek coono la. mais ñaata woon ngeen woon waaw amoon na si moom. na amoon na jigéen waaw. bari jigéen ñi waaw amoon na ay jigéen waaw. amoon na si waaw. ñun mool yi benn instant nii yéeg si yéeg gaal dem Espagne ak yéeg si avion la nu émele est-ce que yéeg si gaal sax gënalu ma yéeg si ab avion ndax mosuma yéeg si avion xaw ma lu ab avion xaw ah, ah, man dëgg man laa wax man waxuma la moo gën a wóor. waaw pour man laa wax. ak expérience bi nga xamante ne samay waa kër am nañ ko yaa ngi dégg déggoo li ma la wax am nañu bu ñu demee ba xamatuñu fu ñu jëm dañuy wàññeeku ñëw toog ndax mën nañ ko gérer waaw bon donc ñun suñu ñun man bokk ñu yéeg ga ñu dugg si gaal yi dem sax moo ma gënal ko man ma yëg si avion di dem parce que li tax moo looloo mu mu mu gënal ma mooy que ne que la may la may lañ may laaj si passe visa ak yooyu aw ma ko samay doom amuñu ko yaa ngi dégg bon donc lu ma lu ma bu mu amee deux cent cinquante mille am na boo yoo xamante ne fii dañu leen yóbbu gratuite. gaal dañu leen may ay famille may leen ay place bëgg seen i doom tekki gratuite léegi nag ñooñu doon may gratuite day boo yoo xamante ne dañuy ñëw dinañ mën a téye si euh, baar bi dinañ ñenn dinañ mën a téye si machine bi ñenn ñi bu ndox amee dinañ ko mën a génne mais xam nga tey jii benn instant ñooñu dañuy baas ñi nga xamante ne ñooy gan ñi ñi nga xamante ne xamuñu dara. bu ko defee ñoom dinañ gérer loo xamante ne tey jii si gaal gi ñii nga xamante ne tey jii dëkkuñu fi ay gan lañu mosuñu dugg si géej dinañ am courage. kon ba nii fi mu toll nii instant bi nii am na parce que li tax découragé am mooy que ne temps bi baaxul mais bu déwénee ak jàmm ak salaam man mii di man mii de wax ak yow nii am préféré naa yóbbu yeneen sama yeneen i doom. non déegi am déegi fañ ko not fañ ko yóbbu nag nekk ko fa. lim bi mënuma ko natta lim bi mënuma ko natta mais mën naa la limal ne ne oh fi mu toll nii instant bii nii li fi génn si ay gaal yoo xamante ne na bari ñu lañ dëkk muy gaal gu si nekk yëpp na presque deux cent et quelques personnes oh, am nañu lu tolloo plus de douze gaal yoo xamante ne na yegg nañu douze gaal bu ko ëppul bu ko yées. non déggoo ma dama ne la gaal gu si nekk deux cent deux cent personnes. douze gaal bu ko ëppul du ko yées gaal yooyu yëpp si Bargny lañu tëmbee te yegg nañu genn gaal moo fi def échec muy gaal gi nga xamante ne yàlla dogal no te dañ doon retourner ñoom réeruñu si géej. ñii des suñu borom la ah seet daal nañu bàyyi lu ñuy wax di wax lii moo dee si Bargny te loogu dara amu si ñun loolu la ma wëyee digg loogu dara amu si Bargny ñi si gaañu matul sax quatre personnes matul quatre personnes. matu ko ne bàyyi yow da yokkat lii nii bëgg a ñëw journaliste jar loolu c'est pas non ce que gis nga fi bi ngay ñëw est gis nga ko bon bon dañuy wax dara amu